très chers internautes de Pikine Info ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar tey ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Pikine Rudis donc seet si ko xamante mën nañ doom Pikine la Pikinois la ñu xam nga ci espoiru Pikine donc tey li nga xamante ne moom mooy actualité au sein de Pikine tey ci lañ nar a waxtaanee parce que ku ne xam ne ne coow jub na diggante nga xamante ne moom mooy diggante Boy Niang ak Modou Lo donc ñu ngi koy ruumandaat donc polémique bi bëri ci au niveau de Pikine mun nañ mu créé li nga xamante ne sax moom mooy divergence d'opinion wala divergence de propos parce mun nañ am na ay gis-gis yu wuute wala ay cadre yoo xamante ne tey am na ay réeroo seen diggante entre Pikinois càndum euh, ñu ngi lay fay di santaat yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari di nuyu waa Pikine Info di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ma nga kan moy ins pour gars gën la xam waa ins nag moom Issa Mané laa tudd quoi mais gars yi surnom bi lañuy wax ins ins ins Issa laa tudd nekk doomu Pikine dëkk Pikine yaroo fi magge fi ba nii di défendre couleur piking di ànd ak képp koo xamante ne si dafa bëgg Pikine di défendre Pikine vraiment. nga nekk sportif comme ni ma ko waxee mu mel ni yàgg nga pratiquer sport ñan nga bokkal génération ak yéen mën nga yàgg àndal di di def sport. waaw sport nag euh, mën naa ne dama si juddu parce que fii ma dëkk mii Pikine Nord ku ne xam na Pikine Nord boo ko boo fi duggee xam ne ay sportif ngay fekk yu si mel ni ay. Euh, sunu grand frère ay Khalifa Ngiraan Cheikh Ngiraan ay Boga ay Laasana gaa yëpp sunu coach nekkoon laay bari vraiment nekk koo xamante ni si ko xam entraînement la xam sport moo ñu doon vraiment tàggat euh, ñu dem ba ci biir ba am notion bi ndax xam nañ bu baax a baax fi mu nii moom euh, sport xam nañ ko bu baax a baax di ko pratiquer ba nii tool toll samay samay génération nag ay Ama Baldé la ay Boy ay Ñaari Yaar ay Batista ay Lamine cormi hein? Ah. ak euh, voilà quoi yenen gars yoo xamante si pour ne citer que ñom quoi. Mhm. jot nga bëre ak carrière bi lan mo lan moko and lay jafe-jafe. wa jot na bëre mais euh, xam rek bon dama téla a lu ñu naan teel a quoi jot na bëre mais mbapat laa daan bëre année bi ma licence 2013 la def ben accident nak vraiment après xam rek. ci laa teg sama carrière na commencé nekk sama bopp quoi nekk sama business bi bopp voilà loolu moo taxoon loolu moo nekkoon sama ndong moo taxoon ma jotoon ma bàyyi bëri comme li naan teel a sotti quoi loolu moo ma xawoon a jàpp cet yi rek moo gàllankoor carrière bi naa sax jekkoon nga macha ba gars yi Tyson lañ la wooye bon waa gars yi <laughs> xam nga gars yi a tooñ bon peut-être que bi ak genre affaire yooyu noonu xam nga peut-être moo tax ñu doon wax ay Tyson ak yu mel noonu quoi naan xam nga Tyson bu sotti la ak yooyu mel noonu quoi pourquoi parce que ñoom Tyson bañ fi jugee wala bañ fi nekkee ba commencé dem fin de carrière daanaka bokk naa ci révélation bu bu bu bu bu bokk naa ci révélation bu doon jug quoi. yooyu comme comme ni ma ko waxee rek ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang ñooñu laa jugoon lool te vraiment. fu ñu taxawee fu ma taxawee bon ñu ne mbër maa ngi ne donc yàlla nag mooy dogal ñu sante ko suñu borom baax a baax a baax a baax. Mhm. jotoo bëree arène quoi. non jotuma bëri arène mais am naa licence am naa licence avec frappe mais comme ni mu la ko waxee xam nga euh, lu ñu naan euh, lu ñu naan euh, boobu temps lamb yi mi ngi daan commencé arène bi lutte avec frappe mi ngi daan France commencé novembre te sëñ Modou Niass sax moo doon tëgg bañ daan wax sax sëñ Modou novembre loolo ko Gaston doon tooñee bon si janvier bi nag laa dem gàmmu après xam nga yoroon sama mbëtu ànd ak Lamine Koor mi sama copain xam nga après ci la am soog boo xamante ni si après moom yàqu mu jëlee ci fracture double fracture sama jambe ak sama sama bras après nag ci la arrêté affaire yi quoi mais moo tax jotuma woon a eggali làmb ji quoi. est-ce que nga nekk sportif am benn rêve boo xam te ne yaa ngi ko doon nourrir. moo yàgg ne donc sport nekk ci yow nga doon dund loolu ba dara desul loolu daal di entamé tey sa carrière bëree dog-dog boobu dal sa kaw nan nga ko doon dundee intérieurement. sant yàlla ñu boo ñu xoolee xam ni ay Baye Fall lan ay Baye Fall lan euh, di santaat bu baax a baax a baax sunu benn grand bu tuddoon euh, bu tudd sax bu tudd sax sëñ moor sëñ Mor Ndiaye ndax benn jour mos naa am benn combat nommé mais benn mbër bu tuddoon Socé maa ngi doon bëree ak làmbi tukulóor Euh, bon sëñ Mor yóbboo ci benn mara mara bi daf ko waxoon ni kii warul bëre waaw kii rawaanam bëggul bëre barki maam Cheikh Fall mu ne ko kii rawaanam bëggul bëre sëñ Mor Ndiaye sunu grand mooy magu Ibro bi nga xamante ne si mooy borom site bi maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax de passage vraiment sunu grand bu baax non ba mara bi ne kii warul bëre mais xam rek ko ñun ay jeunes lañ ñu ne non mara bi xamul lu muy wax quoi parce que ñun ñu instant bi nii làmb wuyuñu xam nga la mu jox ñu bopp ñu commencé war cee mën a am dara mën naa ñu war a bëri affaire yooyu mais keroog ba ma defee accident laa ni non c'est vrai man waruma bëri c'est moo tax quoi loolu moo tax di jaaral mm-hmm. waaw gis nga lu nekk moo tax dañuy dellu sant suñu borom baax a baax ndax ay ay ay jullit lañ ay taalibe lañ vraiment suñu borom lépp lu mu def rek dafa gën quoi te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax ba ma bàyyee bëri ak léegi nii bon vraiment lu mbër am ci ci bien wala lu mbeur am ah, man ma ngi ci sant suñu borom quoi ma ngi ci ma ngi sante bu baax ma ngi sama njabot ma ngi dem fu ma bëgg ma ngi sante yalla bu baax baax baax alhamdullilah mhm. alors dañuy def transition rek wax ci comme ni ma sama doonte cadeau li waral ciow li parce que jek jek nañ boña bari balagay numéro 2 yalla may ko ndam ci kawam mais mën nañu lamb wala ohlu lamb daani logique bi limi laaj moy diggante boña numéro 2 ak modou lo loolu jur ben polémique ci bir pigine en tant que piginois ban jàngat nga ci def waaw comme limay wax rek dañ nan footum fóotum footum biir néeg ndax nee naa Pikine benn bopp la kenn mun ko xar ñaar loolu dafa judd suñu judd ñu am benn déggoo bu nekk suñu biir ñu ñëpp doon benn muy kër Boy ñaa muy kër Ama muy sama kër muy kër keneen tamit aussi vraiment euh, polémique boobu ngay wax noonu man maa ngi koy dégg ku ne maa koy dégg de partout dem naa sax bay dégg gars yi ñi nga xamante ne dañuy def live comme ay genre Dave ay ay ay Fadam 2 ak ñeneen pour pour citer ñooñu ñuy wax ni ay coup d'état la bu Boy Niang jëlee combat bi. ma la no am na moo yoo xamante ne si dafay rëy trop trop trop trop trop ci ci ci texte yi wala ci phrase yi ñu koy employé. parce que coup d'état amuñu foofu coup d'état yàlla nu ci yàlla musal. yàlla nu ci yàlla musal même Macky mii suñu gouvernement bi ñaanu yàlla coup d'état am fii ndax suñu Sénégal wax dëgg yàlla fii jàmm rek moo fi xaj jàmm rek lañ bëgg jàmm lañuy ñaan borom subhanahu wa kon bu ñu nee coup d'état ñaaw lool lool lool Modou Lo déglu ngeen ko déglu waa kër Modou Lo démb démb rek maa ngi dégg benn Ibakan benn benn benn interview moom amoon ak moom Modou Lo na ñëpp ba mu des boo Niang kon Modou moo bëgg bëre ak ñaa maa ngi dégg ay Alaaji Mbay di wax naan xam nga euh, Ama Baldé roi des arènes lay bëri parce que am na communication yoo xam te ni xaaruñu ko ci Ama Baldé man nag maa ngi wax Issa maane maa ngi wax man Issa Mané en tant que Pikinois en tant que déretu Pikine en tant que doomu Pikine bëgguma ku yàq suñu pikin bëgguma benn nit koo xamante ne dina nekk ailleurs di sànni ay grain de selam pour suñu suñu kër gi pour jéem a yàq suñu kër gi ñun ñëpp benn lan bien vrai que bien vrai que kenn ku si nekk sa kër ngay am boo amee fa ngay yóbbu bien vrai que loolu la mais lii amul lenn loo xamante ni si coup d'état wala leneen wala nangam sangam dina ci am wala da ciy am ndax war amu fi boo ñaa laajul kenn Ama Baldé laajul kenn wala amaa Baldé peut-être bu laajoon kenn tëgg nañ combat bi mais suñu borom dogalu ko jaam ak pexem yàlla ak dogalam suñu borom mooy dogal yàlla peut-être Boy Niang la may chance su munu war ko bëree xamuñu ndax sunu ndax taxaw na wala taxawul xamuñu mais nit ñi bëgg nañ ko promoteurs yi bëgg nañ ko yéen koy dégg euh, euh, euh, Boy Niang bañul kenn évité wul kenn waa kër Modou bëgg nañ ko Modou ci boppam bëgg na ko bëgg na combat bi ndax boo leen seetee interview da nga xam ne Modou Lo bëgg na léegi nag lenn moo fi nekk mooy boo Niang mi ngi toog croiser les bras Ama Baldé ngi toog croiser les bras Modou Lo mooy bi tey bu nee kii lay bëgg a bëreel tey bu ñu ko seetsee dañuy bëree ak kooku Boy Niang du ci ñaaw Ama du ci ñaaw mais nañu bàyyi wax yu ñaaw yi ñu ciy wax pour loolu lay jaxase Pikine Alaaji Mbaye yow lay lancé message boobu noonu day xoolal baax baax baax sa communication parce que doomu réew mi nga doomu dëkk bi nga comme ñun niñ ko nekkee bëgguñu sax di feeñ ci ay télé mais boo seetloo tey ji ma accordé ñii nii nii nii nii ma accordé leen euh, interview bi ni mu demee la parce que il faut que tamit ñuy waxante dëgg il faut que ñuy waxante dëgg am na loo xamante ni si day ñaaw nit ñi di ko dégg ci ailleurs di dégg Pikine mi ngi te parce que ñu bëri ñoo xam ne instant bi dañoo toog seen soccu toog di croiser ba seetaan xool Pikine fu muy mujjee ci problème bi nii nii te lii du problème lu ñuy waxtaanee rek après mu jeex Père de Gaulle déglu ngeen ko keroog mi ngi doon woote réunion pour gars yi mën a ñëw toog ñu xool ni ñuy waxtaanee loolu parce que Père de ñu ñaaw ci bëggul jël combat mu ñaaw ci Bourkhane bëggul jël combat bi ñu ñaaw ci Boy Niang bëggul jël combat bi ñu ñaaw ci yaa ngi comprendre mais nag kenn ku nekk comme ni ñu koy waxee rek yaay yóbbu sa kër mais mbër mi nga xamante ne si mooy Modou Lo moom mu nga xamante ne si moom mooy mooy mooy ndeyu gi moom la ñuy déglu ku mu wax ni moom la bëgg a bëreel kooku day bëree ak moom bu dee Ama la Ama bëree moom bu dee Boña la Boña bëree ak moom après ñu jàppale mbooloo mépp gi ñëpp jàpp ci ñu dem bëree jàppale mu daan bu taxawee publiquement a bëreel est loolu ci biir Pikine mu andi réeroo ci diggante ñaari camp moom laa lay wax réeroo a am foofu xam nga bu fekkoon tennis yi Boña dafa daan Balla taxaw na jox leen ma Modou Lo foofu la wax loolu dafa ñaaw foofu lay ñaaw lu ñaaw fa lay jógee bu boo ñaa loxo Modou Lo Boy Niang daan moo loolu dugal certificat de guérison yaa ngi dégg ne moom day bëree du xaar ama ku ne dégg na loolu moo la neen du xaar ama parce que ama xaaru ko nee na ama xaaru ko moom mi ngi nekk si blessure ama dem jël euh, kële Gris Bordeaux kon moom du ko xaar yaa ngi dégg te bëgg na bëre ren ji donc comme bëgg na bëre ren ji te ama dégg ngeen blessure am même Gris Bordeaux moomu mi ngi taxaw ne dafa bëgg a jël bu Boy Niang pareree paree pare na pour jël ko ndax ama bi euh, wéram ren ji wóoragul yàlla moo xam yàlla na ko yàlla may wér ñu ko ñaan bu baax a baax a baax baax yàlla may ko wér ndax ñun pikin la ñu am pikin la ñuy tiitaroo man daal li may ñaan mooy ñu xool bu baax a baax xoolaat bu baax baax li ñuy wax parce que am na loo xamante ne si warul am pikin warul juddoo pikin warul ñu ko dégg ci pikin loolu noonu nañ ko jëm a sàmm ñun suñu biir nga xamante ne si ñoo dëkk pikin rafetal ko nu mu gën a rafetee damay wax tant que pikinois en tant que pikinois laay wax bien vrai que bien vrai que man si staff Boy Niang laa ci farti Boña wala Ama ndax man sama rax muy Lenx Lenx ci écurie Ama la nek Ama lay andal suba ngon ngoon yaa ngi man nak yalla dafa def yàlla bo ma Boña Boña jël mo def ma ci staffam mais teewul tay bu Boña di Ama di bëree dama ci def lepp lu ma mën pour jàppale ko ama sen kéro ba muy bëree ak Modou Lo dama jël sama xaalis jëndoo ko defal ko ay bass defal ko ay lepp Pape Sarr do dama fen di nuy waaye sama grand Pape Sarr. Uh-huh. mais tey déjà dañ gis na rek Boña jël avance mais coow li bëri na. parce que tey dafa am benn ay gis-gis yu wute comme ni nga ko waxee divergence d'opinion ñu bëri Pikinois yi dañ jàpp ne Boy bu jëlee avance bi rek dafa mel dafa dribblé Ama. waaw loolu laa lay wax ba mooy mooy li ma la waxoon léegi léegi. dribblé Ama amu fa. fii kenn ku ci nekk ak sa wërsëg. dribblé Ama amu fa bu fekkoon day jéem a dribblé Ama mooy que ni day daan Balla Gaye tàllal loxo ne mënuloo ñëw ñu bëri mais laajul Boy Niang ba léegi déggoo leen ko ba léegi sax génnul waxul waxul waxaanul yónneewul. diglewul Père Dogol waxul ménagère am aussi déglu waxul est-ce que comprendre nga kon lolu fofu mu divergence mënu fa am wax ay yoy mënu fa am est-ce que comprendre nga lenn mo fi mëna nek moy mooy que ni ñun pigine ñu jéem a bu baaxa baaxa baax ni ñuy waxee xoolaat bu baaxa baax suñu réaction xamni Boy Niang bu amé drapeau Pikine lay teewee Ama ah, tamit drapeau Pikine lay teewe amna lo loo ci da fay dafay ñaaw pour ñukoy koy jéem a cadeau voilà mais divergence mu am fofu teew alors léegi qu'est-ce qu'il faut pour ngeen mëna am benn dégo seen biir ba bu leen jël avance bi diggante ñaari ñaari ñaari kay duñu yàqoo qu'est-ce qu'il faut solution bon solution man peut-être tuuti naa pour wax solution ndax yaakaar na ni problème bu amé li ñu ut solution mais problème amul pour man wa loolu mënu ñàkk loolu mënu ñàkk parce que comme ni wax rek ay kuy lañ bokk benn bokk benn gétt yaa ngi dégg kenn ku si nekk maanaam di di di xam rek di bay waaram ci yoon wi bu ñëwee na ba war a daje genre maanaam bokk foo xam dañ si fa lañ war a at bokk adversaire loolu suñu borom moo koy dogal mais solution amu fi ndax jéemuñu ko ci ut

ñun mënuñu si dara ni ku ne ak sa choix léegi nag bu fekkee wa choisir loolu la lañ ci wax leneen lu lulul jéem a fexe ñu ñëpp booloo Pikine gunge Boy Niang pour mu daan Modou Lô ndax roi bi roi bi mën a dugg dugaat Pikine bu ko Ama dugalee nice bu ko ah, am am am am Boy Niang dugalee nice lenk si mii dañ koy ñaaral incha allah sama rax la suñu borom taxawu ko moom it ba mu mën a di taxawu pour jéem a jël ah, ah, roi bi loolu te amul leneen ko yeah méttiwul quoi affaire yi buñ koy garaawal nag quoi buñ koy garaawal. waaw parce que xam nga tey ins ins gis mbir mbiri ci benn angle. mais beneen wàll tamit dañu gis ñu bëri ñu ne avance boobu bu duggee day tas Pikine coow li bëri ci moo tax ngeen a réeroo ci ay gis-gis. waaw mais loolu laa la wax dama ni la ay moo tax mu accordé leen tey jii interview bi ndax bu fekkee ay Aladji Mbaye dañuy taxaw di am nu ñu koy gisee am lu ñu koy waxee loolu warul parce que bu ñu xoolee gars yi dañoo créé deux cent pour cent deux cent pour cent bi. bii mooy deuxième fois xaw ma troisième fois ñu koy créé. pourtant mosoon ñu ko créé. mag yëpp di mag yëpp wax ci ba ñu déggoo. pour fexe Pikine doon benn. te pikin dafa war a doon benn. pikin dafa war a doon benn. ndax kat loolu dafa jur suñu juddu. kon am na loo xamante ni si ñun buñ ko nangu. buñ ko nangu nañ fexee ñu doon benn. avance boobu bu duggee képp ku mu dugg fépp ku mu dugg ci Pikine nice fépp fu mu dugg ci Pikine nice l' mooy man li may confirmer di ko wax mooy que ne Ama Baldé ak Modou Lo dafa taxaw li Nicolas tëggoon ko joxoon kenn ku si nekk avance yaa ngi dégg mu am ay ndog-ndog ay retard ay am ay ndog-ndog yaa ngi dégg tey loolu yàlla yàlla yàlla yàlla mu dara tewul def xam mu demee noonu tey mu mu mu ne euh, mu mu mu def benn signal yàlla def benn signal. mooy signal bi mooy lan mooy que ni Boy Niang daan na ba daan na Balla Gaye ki nga xamante ni si moo daanu Modou Lo deux fois ki nga xamante ni si moo të Modou Lo Boy Niang daan ci one seconde maanaam daan ko ci ay une minute même pas deux minutes. avec la manière. léegi suñu borom làmb nag mooy lamb làmb li ñuy wax du biir day waxee wasin lamb day xëy rek wasin làmb moo xëy noonu nag tuddee demee noonu Boy Niang woowul laajul Modou Lo laajul kenn ba léegi Boy Niang kenn déggu ko kenn du wax ni Boy Niang dégg nga kenn du wax ni Père Dogol Père Dogol ba ki démb ba ko benn booy interview interviewé di ko laaj yaa ngi dégg Père bi dafa noonu dal ci kawam ba ko booy bi ne xam ma lan avance dafa mel ni xam nga yeneen yeneen laaj Modou Lo mu ne ko ku la wax loolu mu ne ku la wax loolu yaa ngi dégg ba nar a am am ba nar tàq ci kaw booy bi parce que waxuñu loolu buñ jéem a jaxase Pikine buñ jéem a Pikine man lo message boko lay ñaan buñ jéem a Pikine buñ jéem a Pikine Pikine benn bop la avance bi duggu kër Ama duggu kër ba Boy Niang ñoom ñaar ñëpp benn la Pikine gépp dañuy mobiliser wu jappalé leen pour ñu dajé ak molo pour mëne ko daan mo gën Modou Lo dem bëri ji ak keneen combat bi. liñ jorot jot comme information mel leen sori ngeen ci biir waxtaan mo combat bi li mu taw bari wu Thiandoum xam nga moy comme liñ wax bu yalla dafa dogal. ñëpp di la wër vraiment. waaw loolu yàlla moo ko dogal Pikine moo xew. Ah, non Pikine moo xew. Pikine moo xew pourquoi Pikine moo xew. parce que boo Niang drapeau Pikine lay lay lay représenté ñun tudd ñu ay tudd Boy Niang tudd ñu ay tudd Ama. ñun Pikine la ñuy wax. parce que drapeau Pikine lay lay lay représenté la ñuy représenté ñoom. Balla Gaye dafa mës a wax ci ci interview ci ci combat moom Boy Niang bi mu ne lu ma neex ci Pikine mu ngi ko doon wax ci duplex bi Guédiawaye li ma neex ci Pikine mooy que ñoom benn bopp kenn mënu leen xar ñaar mboodu Pikine bu doon kii dañuy mobiliser wu ñëw ko loolu bu ñu ba waa ay ay yeneen nit ñi di ko remarqué loolu ak sant la kon loolu dañ ko war a gën a mën a gën a war a mën a dëggal loolu yaa ngi dégg waxtaan bi nag loolu mënu ñaax ndax ku boot bukki xaj baw la lanu wax dafa daan Balla Gaye ah Boy Niang dafa daan Balla Gaye àdduna gi yëpp nag c'est normal instant bii nii gars ngi naan ay 5 promoteurs ñu ngi ciy waxaale ay 20 promoteurs ñu ngi ciy waxaale adduna gépp ñu ngi ciy waxaale man sax bëgg naa combat bi. promoteur ñu ngi koy wër ñu ngi wër booy la. man sax bëgg naa tëgg combat boobu parce que loo xamante ne si amateur yi ñoo koy promoteur bu ko tëggee promoteur xam businessman la. promoteur businessman la du tëgg du tëgg instant bii nii kenn kan mooy tëgg Boy Niang Tapha Tine kan moo koy tëgg kan moo lay wuyu si kan mooy tëgg Boy Niang Bombardier kan moo koy tëgg Boy Niang Gris Bordeaux kan moo koy tëgg Boy koy tëgg non mais dañuy waxtaan kenn du leen seetaan si amateur yi nag dañu yor seen xaalis kenn dund leen kenn moomu leen dañu yor seen xaalis di dagg seen diggante toog pour pour se faire plaisir. et pour se faire plaisir nag ñoom ñooy xool leen neex ñu koy imposer naan li leen bëgg suñu suñu sañoon lii ay rêve la suñu sañoon lii may am suñu sañoon lii may am mu jee anyway léegi nag suñu borom bu dogalee bu dogalee noonu après nañ ko jëm a gérer noonu ñu bañ ko ñaawal ñu bañ ko ñaawal ama bëreeg Modou Lo Boy Niang bëreeg Modou Lo Ama këram amul drapeau Boy Niang këram amul drapeau drapeau pikin la ñuy représenté ñoom ñaar ñëpp. yaa ngi dégg kon comme drapeau pikin la ñuy représenté ñoom ñaar ak yeneen boy yi fi nekk ay sox ay lengs ak ay tout le monde dañuy jàppale ñun pikin nañu jàppale Pikine fexe ñun suñu biir fexe dara ba ñoo pénétrer pour yàq suñu ay diggante nañu ñaan jàmm ñaan ñaan ñaan nañ ñaan jàmm daal nañ ñaan jàmm. est léegi wax nga en tant que Pikinois léegi dañoo en tant que membre staff Boy Niang parce que Modou Lo adversaire la boo xam te ne adversaire taille neexut a bëreel. Modou de taille la neexul bëreel. waaw xam nga dañ may wax keroog rek ni ma euh, boo leen jëlee Modou Lo Modou Lo di te am ngeen problème ma leen chance Boy Niang mooy que ni moom ku muy bëreel rek chaque jour dañ naan dañu am problème loolu moo ñu jik moo tax ñu sant ko yàlla. Modou Lo adversaire de taille la c'est vrai mais Modou ki ko daan deux fois ki kite <laughs> moo la moo la bañ a daan ci ay wun seconde kon boo ñëw Modou mun ñoo jaaxal. mais gis ngeen bi mu duggee Pikine li mu fi def tan mën na ni seen kilifa la bëreel. suñu kilifa la bëreel mais moom it kilifaam ci làmb lañ daan suñu kilifa la bëreel daan ko mais moom Modou Lo kilifaam ci làmb la boo ñaa daan barki démb. yee koo xam te ne si fu mu fu mu jàpp barki démb njaa gis ni mu def Modou Lo. lu ñaaw muy Balla Gaye kii kooku la kooku boo ñaa kon day day gis souvent seen kàddu kaw Modou Lo ñu ne presque Modou magewul booy dara moo tax booy yi mën nañu ko bañ a yóbbul dara. non xam nga ñu Balla sa magewul booy yi dara affaire du foofu affaire du foofu entraînement la ànd ak say mbokk ñoo taxaw dëggal sa bopp def li la war tegal sa loxo suñu borom suñu borom def lu mu def naan nice mais amul ay adversaire de taille adversaire de Minita adversaire de xam non ñun duñ sous-estimer adversaire non boo ñaan noo toll gis ngeen boo ñaan ni muy bëree day taxaw ak yow ak lucidité taxaw def lepp lo xamanteni si mom la ko yoon may la lay wax dedet loolu lay def def lo xamanteni si mom la ko fi may non non lu ko yoon may lay def bo seetloo seetaan ay combat boo donc loolu non dafa mata baye xel adversaire de taille boo ñaan bëri na fi adversaire de taille bu nekk. eh bëri na fa la de Guiers bëri na fa tafatine Tine. xarañ laa lay tegal non mais xarañ képp xarañ na xarañ ndax bëri naa tafatin xarañ xarañ non dafa nank ndax bëri naa tafatin bëriwul ak tafatin kan la fi bëri la degeer moo la degeer nu mu demee benn machine beneen bi machine ah, ñu jox victoire par ah, ah, par par décision arbitrale waaw par décision arbitrale boo ñaa ala degeer nu mu demee boo ñaa tafatin nu mu demee boo ñaa bàllagay ba ki dem nu mu demee kon nañ bàyyi yooyu nit mën nga télé fii yombal fële yee mën nga télé fii yombal fële Modou Lo lu mu nekk adversaire de adversaire de taille yaa oustaz comme ni ko Zarko di wax yaa oustaz ñu ngi lay baax a baax ñu ngi lay siyaar bu baax yaa oustaz xam nga xam nga moom Modou wax yaa ngi Yékini mën a noo ay ñaanam la soxla Modou Lo ah. dañ ko waxoon yaa ngi Yékini mën a non man Yékini ay ñaanam laa soxla Modou Lo loolu yàgg na li may wax nii ñun ay ñun dañuy dañuy topp nag yaa ngi dégg mën na ñu ay ñaan lu ñu soxla nag soxla wuñu ay ñaanam Modou Lo yaa oustaz ñun soxla nguñu say ñaan xam nga li ñu soxla instant bi kuran bi après nga ñaanal na mom ngay paré da mel na gënë mer la farano to tol xaftaan mu la yakam kan modou paré na ya oustad non isa ya oustad jugul jugul xiyam rek demul won demul won nafilé ji ñew non nga am ay ay korom la yor dé ay la yor ay kor ak hypercule dal wa mais xam nga manam kor ko koy ko koy def ko japp ngay ko japp ngay dor ya oustad ku mu japp lay dor boña na lay xexé mo na lay xexé boña yaa ngi déggoon guy gi lu mu waxoon est ce que waa géej waaye dañoo dof man dinaa damaa dof bay bëreeg Boy bay bay xeex ak Boy Niang ne si 11 ans nga nekk champion champion champion de kon nag bu ay xeex moom bu ko sax jéem moo bu ko sax jéem a kii moom wax dëgg yàlla loolu moom suñu xel na ci quoi incha allah ñu ngi ñaan rek ñu ngi ñaan rek ak lépp lu yàlla di mënti def muy ama muy muy bo muy Boy Niang képp ñaar ñoo ñëpp képp ku ci Modou Lo mënta bëreel day daan Modou Lo ñaar ñooñu ñëpp. mu am mu am beneen doomu Pikinois ah, muy soq gis nga mu bëree samedi bi ñu génn mais bi mu bëree ba def déclaration daan ni bàyyi na làmm coow li bëri na ci kàddu yooyu noo ko gisee. soq dafa yebaate waaw soq dafa yebaate sunu rax la euh, raxam man magam laa dool jët lii maa ngi rappelé wu mosoon nañu bëree mosoon nañu amee tournoi Monaco Plage. soq ñëwoon di ma dëkk mu ngi nekkoon lu ndaw ngi nekkoon lu ndaw ba ma koy sax xama minimiser ba di ko sax saako yooyu noonu soq suñu raq la mais am na loo xam ni si bu ko waxee waxu yabaate la pourquoi waxu yabaate la soq mënoo fi nekk war a bëreeg franc Pikine gi yëpp nekk sa ginnaaw ba nga duggee keroog esat xam ne Pikine gu wuy si la bëriwoo ak manière ba pare daanu ak noo xamante ni si neexunu nga war a jug yaa ngi dégg taxaat sa dàll taxaat dàll yi seerewaat dents yi dem gérer affaire yi entraîné teg ko metti fu leer defoo ko ñi lay dëkk micro ngay wax lu nekk di wax naan ay que ni su may bëriwaat Pikine su may bëriwaat làmb ji noonu lay nii lay mel comme no ay non mais moomoo Pikinois yi ñun moomuñ Pikinois ñun ñun kenn moomuñu pikin kenn moomu ko ñun kenn moomuñu ay a lan te dañuy teewe Pikine drapeau Pikine deretu Pikine lan yor moo tax ñu lay wuy si ba barki démb gis nga gis nga gis nga état bi nu mel promoteur bi dafa dem ba mujj gi léegi dafa wàccee waa zone ak waa rouge wàccee leen ci rouge waa sora waa zone ak wàccee leen ci rouge bi wàccee leen bi parce que Pikine Pikine ñoo la wan ñoo la wan ñoo bokk na non du ay coow du ay coow lu bokk ak coow yu bokkul pourquoi du ay coow yu bokk ak yu bokkul

serewaat dali fi ay baye làmb amul fi lolou affaire la ragal la da ngay wo da ngay wàcc Serigne Touba di wàcc Cheikh Rafal te talibé maam Cheikh Rafal warul nek ragal warul daw touma nga am ay pression yooyu taxawul ay pression yooyu non yooyu taxawul deug la yaay yaay la deug la mais bo amé tamit sa yaay nga yob doko indi suma yaay bo amé sa keur nga ko yóbbu doo indi suma keur te dem nañ ba làmb na commencé la jox bop da ngay respecter affaire yi fi do bàyyi. doo bàyyi tey doo bàyyi ëllëg bu fekkee loolu nga bëgg a dégg wala bëggoo ko dégg di nga ko dégg doo bàyyi tey doo bàyyi ëllëg da ngay seerawaat dal yi entraîné waat teg ko ci yoon am combat bëree daan gars yi gunge la da nga wàññi wax ji di entraîné loolu lañ gëm ñun Pikine ama wax na ko de kuy daan lañ xam dëgg la kuy daan lañ xam ama wax na ko kuy daan lañ xam kon nag am na loo xamante ne si yaa koy may sa bopp foofu nga toll nii nii nag xam nga siraatal dal yi dem entraîné di ñëw bëri daan. mais si am ay raisons personnelles yoo moom moo tax mu day nee na ma ay ay ay pression ay ay non xam nga non yooyu amul never yooyu amul ñun gëmuñu yooyu meen soq ñun gëmuñu yooyu yaa wane sa bopp yaa ngi dégg ba ne da ngaa bëgg làmb gars yi di la topp commencé na la topp nag amul joxo bopp rooti làmb dooñu dooñu dugaloo ci affaire bañ dugg ci ba génn bàyyi ñu fi non non déedéet Eumeu Sène Ama Boy yaa si tegu doo daw génn ñu soral loolu. Ah, est-ce que kontaan naa ci yow mu baale nga tàggoo wa di santaat yalla di santaat yalla bu baax baax santat senegal santat aduna vraiment sant suma soxna sant sumay wajur bu baax a baax a baax baax baax sant suma gars aussi sant wa Pikine yep di ñaan rek wax deug yalla Pikine yalla fi yalla wate jamu, Senegal yalla fi yalla wacce jamu, aduna yalla fi yalla wacce jamu, nañu moytu ak di muslu ci setané ndax setané kat nit la setané nit la mu ngi suñu ay biir dañuy yeesalaat xel yi defaraat toogaay yi te xam ni àdduna yàggul àdduna yàggul ñu ñëpp benn lan ama ñu ngi sa ginnaaw Eumeu seen ñu ngi sa ginnaaw booy Niang ñu ngi sa ginnaaw Sokh ñu ngi sa ginnaaw ak bépp mbëru Pikine Lengs ñu ngi sa ginnaaw kon nag nañ koy rafetal incha allah yàlla doolu ñu sutura doolu ñu jàppale bu fekkee wax yi dafa dëng ci man la ma ngay koy bu wér ñu xam ni nit rek la sama xel ak sama xol wahai doon waxee puri ma it pour yàq mais dama doon wax pour defar di si jégalu bu fekkente ni dafa dëng bu fekkee jub nag suñu borom subhanahu wa taala la ñu koy gën a tolli di ko gën a taalal loxo di ko ñaan pour mu gën ñoo taxawu ci suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am tawfiix yàlla na ñëpp am sutura barki maam Serafal jërë ngeen jëf voilà jibi mi ngi noonu ah. mu nekkoon le grand ins tey gis ngeen kàddu yi nga xam ko en tant Pikinois joxe xalaatam ki li nga xam te moom mooy def actualité comme ni nga ko waxee wax yi nga xam te ne wax wax yu nekk ci moom la Pikinois aussi ku nekk donc téye libre tam nga def sa commentaire comme ni ñu ko gisee euh, di remercier tous les fidèles internautes de Pikine Info TV ak les jeunes techniciens jibi leen jox rendez-vous prochainement merci